asalaamaaleykum suñu mbokk internetu euh, Feeling Dakar TV comme ni ñu koy defee à chaque fois di dalal ndaanaane ak artistes yi euh, alors tey ah, nga xamante ni moom mooy euh, Arcos bu Pikine gis fi suñu maman yaakaar naa ne kenn doon ko présenté fii ci Sénégal alors tey moom lañu dalal fas yéene waxtaan ak moom muy maman Khoudia duñ sore ci wax ji dañ koy bàyyi mu nuyoog mbokk internet Feeling Dakar TV yi ñuy seetaan après ñu dëkk moom ci waxtaan bi maman ñu leen di di la ziar maa ngi leen di fay yéen waa Feeling Dakar di nuyu waa àdduna waa senegaal di nuyu sama fans yi ñi may béggee man tam aussi maa ngi leen di béggee. di nuyu waa Arcos Pikine tey fi ngeen ma fekk ci sama lieu de répétition di nuyu suñu président Leyti Fall. di nuyu ñëpp nag à travers du monde bàyyiwuma kenn. Mhm. alors euh, comme ni nga ko waxee ñu ñëw fi nga xamante ni moom mooy euh, fii nii ci Arco Pikine ñu gis yéen ñëpp ngeen dajee fi alors loolu euh, day wane que ni yéen ñi nga xamante ni yéenay yéenay théâtre xale yi di jug référence la ci li nga xamante ni moom ngeen def tey jii. waaw ofet ñun moom suñu slogan mooy ñu sommes un waa Arcos Pikine ñu sommes un euh, te yaakaar naa 2010 ba tey ñoo ngi fi di liggéey ci théâtre di def ay formation di def ay théâtre ba ci casting yu bëree bëri bëri fii la ko gars yi di defee man ba télévision yi ngeen may gis ci film yi biir Arcos lañ defee sama sama sama casting loolu ñu koy gërëmee Leyti Fall suñu président bu baax a baax a baax mhm. te xam ne nag wax dëgg yàlla mi ngi bay wàllam ci aar bi te gëm naa ne fii Sénégal bu ñu amoon cinq yu mel ni moom wala dix yu mel ni moom wala ñett yu mel ni moom rek aar bi dana dox incha allah bu soobee yàlla. Mhm. alors yaakaar naa ne euh, am na solo mais dañuy xaaw tënk rek tuuti euh, nga wax ni maanaam naka nga def tey jii euh, ba tey foo joué sénégalais yi kontaan te fan ci à chaque fois di ma la laaj pour ma invité est-ce que tey mu ngi doon wax naka nga def ba ba ba tey jii. partout ñu lay bàyyi xel. waaw mooy li ma la wax ci début bi rek xam nga 2010 foo foo foo fi nekk ba heure bi mhm. am na lu la fa bàyyi. Mhm. ndax nee nañ lekkati kese euh, naxul béy. Mhm. kon ñun bu ñu toogee fii 2010 ba 2023. ci théâtre kon gis nañ fi sunu bopp gis bi sunu bopp mooy ñu ngi ñuy jàngal théâtre te naxuñu ñu ñu ngi teg. ci yoonu théâtre te naxuñu ñu ngi ñuy wax dëgg ci théâtre te kenn naxuñu ah léegi nag loolu boo boo fa yàggee kon jaadu na tey jii ñu lay gis ci téléfilm yi gaa nag ma wax la benn affaire ñun moom wax dëgg yàlla ah ku ñëw ci sunu arko bi bëgg siiw moom ah gëw mën a di ko gaaw parce que ñun gëmuñu succès liggéey la gëm su répétition jotee dañuy summeeku sul sunu sol sunu tenue de répétition mhm. répété bu ñu paree solaa suñu yére dem bu ñu amee sunu liggéey yeneen dañuy dem liggéeyu ko mm-hmm. waaw kon ñun dañuy jàng dañu jàng métier bi ba tollu fiñ ci toll mm-hmm. waaw Euh, yaakaar naa maman loolu am na sens quoi euh, yaakaar naa ne gis nañ euh, mœurs nga man à chaque fois dama koy bàyyi xel des fois ma jékki-jékki arrière ay épisodes yu bari di ko lépp di wane que ni maanaam suñu cofeel mm-hmm. xamante ni moom mooy njabar mu def polémique yaag yaag ngóor yu demee noonu <laughs> alors est-ce que xam bi ko géewee maanaam da doon def priorité est-ce que xam ba xam après am nga ci ay retour rek da nga ci am ay mm-hmm. am ay retour parce que fii Sénégal fii dafa dafa dafa dafa dafa xaw a doy waar ka dafa nekk dëkk bu naqaree waxee. dëkk bu bu naqaree déggee. dëkk bu naqaree interpréter rôle. mais damay wax ne toujours sénégalais yi euh, nañu jàpp ne li rôle bu may interpréter la. bu ma koy jouer du nekk man. du nekk man mais dafa am ku may copier pour li muy def man ma copier ko bu mën a réussir loolu. souvent nag euh, dañuy wax ne. parce que dama ko mës wax sama benn interview. ma ne fii luñ fi joué rek am na. am ma xool ci samay commentaire am ku ni non non Mama Khoudia bul wax loolu fii du luñ fi joué rek moo fi am. kon la plupart lu ñu fi joué rek am na. xëy na bu lépp amul tam am na lu ci am. parce que man ku ma xam xam na ni man j'ai vu avec ma famille. sama yaay maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana fi daw si fu mm-hmm. mu tëdd gënal ko fi mu jóge wax dëgg yàlla maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax ku ma jàppale la ci aar bi mm-hmm. ku ma jàppale la ci aar bi ma dimbale la ci aar parce que su ma waree dem sax moom moo may soññi maa ngi koy ñaanal yàlla bu baax fu mu tëdd gënal ko fi mu jóge ci daraje Seydina mm-hmm. Muhammad voilà euh, bi nga koy wax ni yaa ngi kenn yow euh, da ko gis maanaam euh, bëgg a yeete te sénégalais yi xamewuñ ko noonu est-ce que yaakaaruñ comme ni nga koy jëlee jékki-jékki tëj buntu bi woo xale <laughs> xaw moo tax ba ba léegi muy def polémique. mais xam nga xel moo garaaw. Hmm. gis nga xel non xel dafa garaaw. <laughs> xel garaaw na xel saay-saay na. <laughs> parce que la fait que nga tëju rek. tëju waaw automatiquement. gars yi seen xel lan la ñuy xalaat te te en dehors de loolu sax sore na. <laughs> sore na mais nag dañ koy sante yàlla bu baax te xam ne ñun ñoo opté métier bi ñu ñoo taamu métier bi. Mm-hmm. métier bi nag moo lay def loolu nekk. moo lay def loolu nekk. Mm-hmm. waaye nag ah ñun ay ay borom kër lañu. ay kilifa lañu te métier bi lu ñu ci am sunu kër yi lañ koy daw yóbbu. lool la ñu yaree fii ci arko bi. loo liggéey dawal jënd saako ceeb yóbbu sa kër jëndal dawluñ yóbbu sa kër pour yor sa njaboot. parce que dañu nekk métier bu doy waar mais nag dañu nekk métier bu noble. waaye. waaw yaakaar naa loolu am na solo bu baax a baax euh, mais yaa bu fu ma bëgg ñu waxtaanee. sax tey soxla nañ sa message. aussi euh, parce que dañuy gis euh, comme ñi nga xamante ne ñoom ñooy jël ay théâtre comme yéen ak ci wàllu musique ak yu demee noonu. alors à chaque fois. koo ci invité danaan euh, bi may bi may dugg ci kii bi dañ ma doon dañ ma doon euh, jéem a proposé ay ay ay tëdd ak ma ak yu demee noonu ay produit waaw quoi promotion canapé yaa koy wax tey lan nga ñu mën a dikkal ci loolu parce que gis nañu récemment rek euh, Mirma génn di expliqué ci kaw bi ñu koy waxatee di sax waaye baaba am di yu demee noonu en tant que yéen ngeen nekk loolu di ko porté ngeen gisee muy rafet tey ñu mën a wax ci producteurs yi def loolu bon xam nga man damay wax ne mhm. mag bu nekk sa magu bopp nga <laughs> mag bu nekk sa magu bopp nga gis boo jógee pour benn affaire dox ko ci fulla dox ko ci fayda fii kuñ fi chantage da laa neex man nag man dama par personne man bëgg a génn tele du tax may dox ci chantage bëgg siiw du dox man ma dox ci chantage man yow yaa may soxla gisal ma sa bopp nga woo ma ñu waxaale ba juboo ci prix ma liggéey ak yow nga fay ma sama xaalis ma dem sama yoon mhm. fii nag ñun ñëpp ay mag lañu. mais defal ma lii ma defal la lii. loolu daf lay neex rek. d'accord mais tamit est-ce que loolu war na xale bu bëgg am. avenir jaaduwul ah, nga ni ah, pour ma defal la lii il faut que ñu tëdd rek yu demee noonu est-ce que loolu. mais bu fekkee ñoom bëgg nañ ko nag mais ku bëgg siiw am na ñoo xam ne siiw lu mu leen jaral. man lu ma ko man damay dem liggéey ba siiw dab ma. man damay dem liggéey ba théâtre dab ma ma ànd ak moom di dem. damay liggéey ki théâtre ba théâtre dab ma ma ànd ak moom def li ma ci war a def ci fulaak fayda pare delluwaat sama kër. mais fii kuy fisantage yow la neex. ah hmm. man faal ah ma ko de te yàlla bu ma ko dund. waaye hmm, hmm. mosuñu ko mosuñu la ko proposé non soo ma ko proposé du ma la tontu. damay génn dem sama yoon. wala la ma lay wax danaa la ko wax ba pare génn dem sama yoon. waaye ban message ngay jàlle ci xale yi nga xamante ni kon ni nga koy waxee bëgg nañ ci li ngeen di def sopp nañ leen ci bu baax a baax te à chaque fois euh, ñuy am problème boobu man invité naa ñu bari. même soos la ñuy wax ban message ngay jàllale aussi. xanaa ñu dem liggéeyi ko jàng ko fi ñu koy jàngee. gis nga métier boo ko jàngee ba mën ko yaakaar naa métier bi mooy moo lay dab yow naa la kaama fay la mais doo dem dabi métier bi xam nga mbir boo ci bëggee xëy xëy xëy dugg ci te tarbiwuloo ko jànguloo ko dafay métti pour nga réussir ci dafay métti pour nga réussir réussir nag yàlla moo ko yore da nga ci gis ku ci yàgg sax bon te du ci réussir parce que wërsëg yamul mais dem ci ci fulaak fayda ba àdduna yëpp xam na yow li ngay yëngu ne yaa ngi dem ci fula yaa ngi dem ci fayda mm-hmm. ñu xam mais nag ah <laughs> euh. man naa li may wax mooy dem leen jàng métier bi théâtre dañ koy jàng <laughs> euh. dem leen jàng métier bi théâtre dañ koy jàng. Mhm. waaw alors comme ni nga ko waxee mu nekk message bu am solo euh, nañ leen euh, dem jàng métier mi théâtre dañ koy jàng alors ñu ñëw fekk la comme ni ma ko expliqué euh, dañ a a yaatal waxtaan bi. di la bàyyi yi de seetaan ak may topp ngir yàlla invité li nga xamante ni moom mooy maman <laughs> Coumba. waaw maa ngi ni invité nañu yéen a doon laaj <laughs> maa ngi ni bon maa ngi remercier waa waat ñëpp ah di remercier waat particulièrement sama président Arcos Leyti Fall mm-hmm. maa ngi koy moom tam remercier bu baax vraiment ku baax la ku bëgg njaboot koo xamante ne daal wax dëgg yàlla macha allah mi ngi bay wàllam ci aar bi mi ngi bay wàllam ci aar bi yéen waa Feeling Dakar aussi maa ngi leen di ñaanal yéen tam fa ngeen bëgg seen site bi egg fa yàlla na fa yàlla sunu borom eggale ci daraje Seydina Mouhamed di wax bëgg bu ngeen ma bëgg bëgg naa leen fokk ak fii seen loolu fi laa leen de <laughs> euh, mbokk internet waa Dakar TV comme ni ngeen defee à chaque fois rek euh, nee naa leen ñun dañuy am mbégte lool di ko dalal mu nekk nit ku oyof nekk euh, ni ku yaatu alors tey mënoon nañoo ñëw mu ne doo